Mustafa آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين ci benn salaatu ala nabi ñu ñaanal ko njabootam bismillah يا رب العالمين امين يا رب العالمين امين امين يا رب العالمين امين يا ربي امين يا ربي قولوا امين امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين امين لا اله الا الله محمد رسول yéena ci seen mag xalifatal muslimin di ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla bàyyil dolli wéram defal ko mu teel defal ko rakkam yépp te Mouhamadou Al Bachir mu Seydi Bam Babacar meññ leen ñu ñaanal nee na jullit ñépp ñaanal timit Seydi Maxtaar imam mi war a taxee waxtaan wi yàlla na ko borom bi dolli ndam defal si gàttal daal mu du ne fi ajo waay yàlla ko yàlla saafara nee na yàlla bu mu doon suñu mujjantal appel yàlla nu yàlla may ay ati at yi ñëwante damay appel bi war may daa lay ñoom teeli sa barke ñetti fatiha ñetti ixlaas ñetti salaatul fatiha seen mag yu baax ji daan def bàyyi seen salaam ala rasulullah amin salaatu salaam ala rasulullah amin amin ya هم العلماء كما الأكارم أيها الأحبة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يسعدني باسم أخي سماحة الخليفة سيدنا محمد المختار وجميع إخوة الشرفاء أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأشكركم جزيل الشكر على تلبيتكم دعوتنا وتشريفنا بحضوركم معنا في هذه الرحاب المباركة جمدات فجزاكم الله عنا وعن الدين خير جزاء أيها الحضور الكرام ها نحن نعود لنلتقي مرة أخرى لإحياء الذكرى الأول من شعبان الذي رفع فيه سيدنا إمام الله عليه السلام دعوته المباركة في وقت الضحى بتحديد وجهر فيه بالدعوة بإذن الله الإنس والجن إلى إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك بكل أنواعه ووسائله وأسبابه بالقول والفعل قائلا قولة مشهورة والمعروفة به أجيبوا داعي الله يا معشر الإنس والجن وظل يدعو إلى الله مؤيدا من الله مدة ست وعشرين سنة فلبى دعوته سلة من خيار الناس أتوا من كل بها الأحبة في الله إن أحق ما نقدسكم به في هذا المقام المباركات من كتب من كتب الإمام المهدي عليه السلام التي هي خلاصة دعوته المباركة لتكون لنا زادا ننتفع به في ديننا ودنيانا وفي الختام نهنئ أتباع الإمام المهدي ومحبيه في كل مكان بهذا اليوم المبارك نسأل الله عنده علينا بخير كثير وبركات تعم بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يزل والصلاة والسلام على إمام الله المختار وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi yëkkati nuyoo ya gën a tedd di ko jëmee ci suñu xalifa Seydina Mouhamadou Mokhtar ibn Seydina Mandione Laye xafizahullahu wa raa di ko ñaanal yàlla dolli ko ndimbal dolli ko tawfiq dolli ko wér dolli ko jàmm te boole nu kooku moom di ci teg rakkam yu tedd yi al imam Mouhamadul Bachir xafizahullah wa jazahullahu anna xayra jaza wa baraka fii di ci teg Seydi Mouhamadul Amin ayyadahu llahu bi nasri li ci teg Seydi Maam Libaas ayyadahu llahu di ci teg njaboot gi yépp ak lu bayti Seydina Limaamu Mahdi te bu ñu ci tuddee sunu ñaari taaw yu baax yi muy Seydi Thiaw rakkam Seydina Laay ñu yóbbuwaale ñu ci des ñépp doom yi ak jarbaat yi ba ci sëy ak lu bayti Seydina Limaamu yan yàlla dolli seen jàmm ak seen rakk limaamu mu Seydina Ibrahim di gërëm Seydina ci taxawaay bi démb ca Cambérène ak discours bu am solo bi barakallahu fiik yaa Seyd di gërëm bu baax Seydi Thiaw ci yar bi ak teggin gi macha allah jërëgeen jëf addi ah, nuyu nag mbokki jullit yépp di nuyu mbokki réew mi ñépp ñi nu bokkul diine ak ñi nu bokkul diine te bokk bokkook ñoom mbokk gi bokkook jàmm ji muy xéwal bu rëy jàmm ji yàlla jagleel na ko Sénégal te macha allah yàgg na boobu ak léegi yàlla yiir nu kiiraayu jàmm ci réew mi ñuy wax Sénégal loolu yàlla na sax nuy nuyu mbooleem mbokki réew mi ñépp waaye di jagleel nuyoo nag soppe yi di maamul mahdi yi alayhi salaatu wasalaam fu nu mën a ne ak fu ñu mën a ne di leen ziyaar bu baax a baax di leen ndokkeel ci bisub seen soppe bii di Seydina Limaamu Mahdi bu tedd mii ah di leen xamal ne nag amaana ba xamante wu ñoo ci yéen waaye xam nañu am nañu bëree bëree bëri ñuy béggee Seydina Limaamu sopp ko sopp waa léeg-léeg rek ñu feeñu la ci ba nga yéen ba ci ñii may junj sax ñi nga xam ne bokk ñëw ñoom diine ci ahlu kitaab yi ak ñeneen waaye nuy nuyu ahlu laay gépp ñi teew fii ci barab bu tedd bi ak ñi nga xam ne itam ñu ngi ci dëkk bi ak ci biir réew mi ak ña ko ci réew di leen ndokkeel bu baax a baax ci seen bés bii ñi mën a ñëw ñëw nañu fu nekk nit jóge na ko ñëw fii ñëw yoo ngir fekke ci bés bu tedd bii ngir fedd li itam wuy si gi fedd li wuy si gi boole sant yàlla ndax ñu jëkk ña ba ñu métti woon na lool ñu doon dox ay distance yu sori di jànkoonteeg ay risque ci àll yi ba yëg si wuy si woote bu tedd bii ba nu wuy see it ñay dellu dellu ñi fiy def des fi ak comme la nga xam ne moom la aaya ko من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر بدلوا تبديلا am na ca ñu jiitu ji am na ca ñu fi des waaye ñoom ñëpp am na lu ñu bokk mooy ne lañu jaayante woon ak yàlla dëggal nañ ko dëgg nañu ci soppiwuñu soppeekuwuñu delluwuñu ginnaaw yàlla xàmmee na ñooñu yàlla na ci yàlla boole ñett ca bitim réew ñuy waa diaspora bi comme ni ko sëriñ daan defe rek ñu ngi leen di nuyu ñett ca toog ca fañu toog rek ànd ak ay ci yi nga xam ne mooy yi mën a amee ñu ngi leen di nuyu ñu leen di ziar xalifa bi ngeen ne leen ay xéewal bi jaax Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam di nuyu di gërëm di sant ñi nga xam ne ñooy organiser ñoom la organisation bi nekk ci seen loxo nu koy doxal ci góorgóor ñett ñett nu bu baax di leen ñaanal yàlla mu fay leen coono yi nga xam ne ñu koy daj ñoom ñëpp dund dunde ndim ñëpp ci koor yëpp nag groupement central ak groupe bâche ak yetta topp yëpp ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanu yàlla nu leen yàlla fayal bi jaax Seydina Limaamu ah nu ngi profité ci occasion bi itim di feddali suñu tënku ci rëdd wi nga xam ne Seydina max Mahdi alayhi salaatu salaam moo ko rëddoon dénkoon ko sunu sang Seydina Majoor ibnu Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu salaam di doom ndax la taxoon mu dénk ko da ci am loo xam ne dafa jëmoon ci ki nga xam ne moo doon jëmmal rëdd woowu ginnaaw moom moo tax kooku du ko woon mën a dénk ndax saatu du wat boppam saabu du fóot boppam comme ni ko wolof di waxee kenn du ñëw ne fal leen ma kenn du ñëw ne maa leen yilif bopp nit ñi yiw duñ ko def ka war a wax moo koy wax ci waxtu wi mu ko war a wax ka war a waxee wax ka ñim ko war a wax looloo tax rëdd woowu Seydina Ñaan Mahdi dénk ko doomam bu tedd jooju di suñu wayjur suñu sang Seydina ma joon la yàlla na ko yàlla fay ngir fay ba bàyyam làqoo mu taxaw ci saa si jëfe loolu na mu gën a rafet jël darajaam jël xam-xamam jël juddoom lépp taxa fële sampa loolu nga xam ne mooy sampa woy juróom boobu saxal loolu nga xam ne mooy rëdd woy juróom boobu jëmoon ca ka nga xam ne moo doon jëmmal rëdd woowu muy Seydina Issa Rouhou lan la def dafa sukk ci suuf jël loxoom di ko foon sëy naa ma sëy naa Issa siisu ma def bu ma ko defee ñeneen ñépp def dégg ngeen ni ko Seydina Maam di nettalee ci waxtaanam mu ne dana yow yaa ñàkk sa baay waaye ñun ñàkkuñu baay yaa ngi nii yaay suñu baay mu doon lu rëy booba Seydina Isaa gëj na fi ñetti at te ndaxam olof dane ku tukki ñu reer ci sa ginnaaw waaye booba ñan ko sequl dadul ñu mel ni njabootuk Seydina ñi nga xam ne Seydina Limaam moo leen yar ci loxoom yar bu yar bu rafet ba mu ko defee rakkam yépp topp ci moom def noonu noonu la soxoog loolu quarante ans du natt bu du natt bu kaw quarante moom du natt boo xam ne dafa romb rek nga xam ne day jàll rek dem loolu ku am na ci yoo xam ne yomb naa mun xam nga olof dane xëy baax yomb na waaye dëkk ca mu de quarante ans nga topp sama waaye sa kilifa lu mu wax loolu lu mu waxul du waaye moom itam moom Seydina Mandione ba mu jàngalee jàngale bu rafet boobu wane royukaay bu rafet boobu moom itam ba mu ca tolloo te mënu defal boppam te borom fay nañ ko bor bi te hésité maanaam rakkam yamu sawoon mu war a jëm ci moom tari nañu muy Seydina Babacar ibnu Seydina Limaam Maxtar Islam tisbaar ga nga xam ne moom la ñu ga ñu jëkk julli ginnaaw bañ yóbboo naa Isa Ruuhu Laay ca raw doom bu tedd bële tisbaar ga Seydina Babacar moo jiite ba ñu génnee dafa taxaw ci buntu jàkk ji ne mbooloo mi naa Seydina Limaamu jàng nañu ko mooy Mamadu xam nañu ko kon mooy kan xam nañ lu ñuy def ak moom Seydina Isaa jàng nañu ko mooy yonent yàlla Isaa xam na li ñuy def ak moom waaye Seydina ma ñoon mii xamuñu mooy kan ku jara moytu mu teg sa nag ne leen man Baabukar de ku ko topp ma topp ko ku ko toppul fay na bor bi waaye leblewaat na fay na bor bi waaye leblewaat na naar yi dañuy wax ne waadul xuri day ñu ne góor bu diggee bor la amit Seydina Babacar ba mu fayee bor boobu maanaam bor boobu bañ ko fayee jaarale ko ci jëmmaam mu leblewaat beneen bor ci ñi ci ñi ci topp dégg ngeen wax ba ni ko sëy naa ma ñor laaj laaye tax ne wiiw yoon ki fi yàlla jiital kooku la xel yëpp dara kon nag loola Seydina Babacar laay waxoon ku ko topp ñu topp ko ku ko toppul ñu topp ko loolu la ñuy wax ci jëmmi Seydina Mouhamadul Muxtaar Laay nii mu suñu mag ju baax kilifa la kilifa gu mag kilifa la kumpa la nag comme la daloon bàyyi mais kilifa la kilifa la nag boo xam ne tim bu mag la domaine boo toog di ko waxtaan ak moom di di xeeb la nga ko xamoon ndax dafay lool ak nag nag cat yeeg tur yeeg lépp macha allah mais day xam ne nag mooy kilifa bi Seydi Mouhamadul Mokhtar ibn Seydina Mamoun xam loolu sàmm loolu ñu fay bor yi ndax yàlla ñu leblewaat loo xam ne bundu ko fayee mu neex na xam nga war na ne ku ñu fay sa bor ngay mel booba la nga leble woon dara waaye léegi ñu fay la loo leble woon malheureusement léegi ñu fay la loo leble woon ku ne li nga lekk da nga doon lekk buñ la dafayul yàlla fay la dafayul yàlla fay la te Seydina Limaamu Laay bi ñaar yëf rek la ñu xëccoo ci wax ne xam nga waa àddina xam nañ lan mooy xëccoo ndax la leen ñor te soxal leen ñun ñun say dem di ca xëccoo te kenn sonn leen moo tax nag comme xam nañ xëccoo te ñu jóg di xëccoo li leen ñor te itteel leen Seydina Ali moo wax alayhi salaam ngeen xam ne ñaar rek la ñu xëccooloo ak jub ak ak ragal Yàlla laa tanaazaw illa ila al huda ak jub ak ak ragal Yàlla kese lanu Seydina Ali moo wax ñu xëccooloo bu dee xëccoo mën na nekk wala bu dee xëccoo ji leneen ak leneen mu ne ngal la ñëw leen xëccoo li jar xëccoo mooy ak jub ak te nag ay doomam déggoon nañu loolu jëfandiku dañ daan xëccoo ak jub ak ragal waxuma la góor ñi rek jigéen ñi dañ daan xëccoo góor ñi ak jub ak ragal suñu bàccee soxna umi bi mooy caatu Seydina Limaamu dafa am bés am ku ñëw ci moom ci aada di way di tagg maam yi kenn ci ay maam mu yëg ci lu bari ko bi mu ko ci teewaay soxna ummi la soxna ummi ku ko ca kër bi ci diine ak mooy ci lépp loo xamante ne rek day niiru leneen mu àgg ni ko lii mbaa du niiru kuuke rek may bi ngay may kii damay bañ a tudd turu fekk bi am njëkk kuy way di togg du may mu nekk baax ko lii nga jël lépp may ko kii mbaa ñu ngi suutare te naa baax ko nekk ummi déedéet lii ñëw na la def te ñëw na la def xam ñëpp sun nag jàngale yu xam ne joxe sa alal ngir ñoŋal sa der mu yonent digle la waaye li tax mu andi xista boobu mooy bëccoo ba ci jub ak ak sax ñu ëmb xam na ne magal gii kenn gënu koo jub kenn gënu koo ragal waaye gis na mu jëf-jëf yoo xam ne ñi ëpp ci waa àdduna dañ koy jëfee puukal bu laaj nga xam dugal bu dalal xelam jàngale gi ñu mun a jàngal ni naa ko dugal ci sa loxo su ko jox ko koo xam ne da ngay ñëwaat ak de ñëwaat sa dëgg njaboot kon ak jub ak ak ragal yàlla rek lañu Seydina Ali xëccoo bu xëccoo mënul lañu lenn rek itam lanu firtal ñu kër sa ba di ko ëppalante lenn kese la yiw Allah laa takaasur maa dunya bal takaasur bu leen mu ci alal addina mais wut bu leen alal addina bi. mais wut bu leen alal addina bi. bu leen ëppalante alal addina. waaye na ngeen ëppalante yiw àllaaxira ndax moo leen di may xéewal yay sax ya ak dara yu sabab te yiw àllaaxira yow ci moom rek la ñu xental ci ñu xër si xamal ñu ne mooy li xam ne luñ ci mën a am bu mu demee ca yàlla dinañu wétt ñu terewoon ñu ko mooy ca fa mu wax ne dee mooy kaasu bu rëcc bi ba kenn bu ne dina ko naan ku ko naan bu fekkee nga doon def lu baax di nga rëcc ñu teewoon nga gën caa kon yiwu àllaaxira rek la ñu Seydina Limaamu digal yu fees te nag ñett ngi nii yoo xam ne ku ko topp mu alak la xadis alayhi salaatu salaam boo ko salaatul muhlikaat shaqul mutaa wa hawa mutabaa wa ijaabul mar'i bi nafsi yonent bi sallallahu alayhi nee na ñettaan ni ko boo ko bàyyiwul moo lay alal te xanaa nit dina am ko fii si àddina balaa nga alaaxam di nga gis ay comportement ñun sax am am ñu ngi koy wax si suñu di nga gis ay comportement ak yu waxin ak yu mel naa kii dafa am ko la koy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett la mu ne suqal lu tara topp sa bëgg topp sa bëgg bakkan bu la nee waxal nga wax bu la nee defal bu la nee jógal nga jóg bu la nee demal nga def lépp sa bëgg moom nga jiite rek topp ko yonent bi nee na alhamdulilah la wax moo lu tara topp sa nafs lu la sa nafs dikk rek nga def ko jigéen baaw yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam boo war yoon yàlla na seet mu ne wa ajaabul mar'i bi nafsihi gëm sa bopp naw sa bopp yéem sa bopp sa xalaat kese nga gis sa bopp kese nga gis keneen suuf daal. ñu dugg ci li nga xam ne moom lañ nekkoon di ko baaxantale ci jamono yi la jiitu yàlla mu ko yàlla barkeelal nangul ñu ko te boole ko lii sumbit yàlla ñu ko yàlla yeggalil ci jàmm mu doon da ngeen jukki bi ngeen jukki boo xam ne dangeen jéem tënk ko ci taw ci ak yàlla wa maa tawfiiqi illaa billaah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib muy ki nga xam ne suñu sang Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wa salaam mu ngi wax naan aydan uzurukum fi nafsikum wa fi quluubikum وأوصيكم بأن تكونوا مشتاقا لخيركم لا تنعم الصدق وكونوا سلوا ولا تكونوا فصدا sang bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam ne maa ngi leen di ci seen ab dox ak ci seen ab toogaay maa ngi di gën te ngeen di nekk di di ñuy dox aw yiw di nekk leen di nit ñu baax bu leen nekk mukk mukk nit ñi ko wax kon gis nga dénkaane la beneen boo xam ne mu ngi tukkee ci suñu sang Maam Bara alayhi salaam mënul tënk suñu dox ci topp yàlla ak sàkk ngërëmal yàlla téye suñu bopp ci lépp lu xeetu dox jëm ci wala tukki jëm ci lépp loo xam ne yàlla gërëmu ko waxuma meer loo yàlla ci li may jëm ci mooy yàlla ndax kat dañu war a xam ne tànk bi nga xam ne mu ngi dox jëm ci mooy yàlla tànk ba tànkab seytaane iblis la warukaay ba warukaayab seytaane iblis la te loolu yàlla suñu borom mu ngi koy wax ci suuratul Isra wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlik mu ne Iblis influencé leen loo man ku la ci nangu rek topp la yóbbuwaale àndal ak moom mu topp la ngeen ngeen jëm te la ngeen di dem yéegal ci sa warukaay ngeen ànd dem maanaam ndigal la la xam nga léeg-léeg mën nañ la nit mën na la tàggu ne la maa ngi dem nga ne ko yoon waangoo xam nga loolu du ndigalal demal waa ndigal lii wa ajlib alayhim bi xayri ka warit ndigal loolu ndigalal tëf la fi alsinatikum wa fi aunikum mu doon ñaari cër yoo xam ne cër ci boppam la tuddoon jëm ci bàyyi loolu xel ca la nga xam ne cër yooyu moom lu muy def ñu jëmale ko ci lu baax te bañ koo jëmale ci lu bon mais bi yoon tuddul cër xam nga rijl ne woon azur fi arjulikum day tënku trop ndax boobaa na ba kii war waruwaay wala ki ñu boot wala yooyu yëpp mën na defe ne génn na ci xam nga du tànk rek moo lay yóbbu foo ngay dem d'ailleurs léegi sax tànk bareetul fu mu lay yóbbu lu mu jege jege am na yeneen moyen yoo xamante bi nii demukaay moo tax ci xikmam ci xikmam moom imaamul mahdi alayhi salaatu mu ne lu xaal bi mas ak xuruut azurukum fi xaali masikum wa fi xaali xuruutikum maa ngi leen di nemmeeku anam gi nga xam ne yéen ngi dem ak anam gi nga xam ne yéen a ngi toog loo nuy ngal la ngeen di dem na jëm ci yiw loolu tere bu dee lu bon la toog leen loolu nag àndoon na ak barke àndoon nag ndimbalal yàlla ndax gis nga dénkaane bii wa usikum bi an takunu mushaatan lil xayri wa jullaasan an shar dénkaane bi ci barkeb dénkaane bi tax na ba am na ñoo xam ne juddu nañ ci ndakaaru bi yaroo fi màgge dund fi ba dee am nay barab yoo xam ne musuñu koo teg seen bët musuñu faa teg seen tànk yombul de dund nañ seen jeunesse yëpp te ku ne xam na ak ndaw ni mu mel dundaleen seen jeunesse yépp ba mag ba màgget ba génn àddina am na ay bërëb yoo xam ne xamuñu nu mu ne te xam nga bu doon dañ ko xamul sax nga ne dañ ko xamul te xam nañ ko xam nañ ne mu ngi fii tout mu ngi fii tout près koy romb mu rural kiraam boobaa nag seen lisaanu xaal day wa iza marru bil lagwi marru kiraaman mururan kiraam lañ koy rombe waaye ñoo ko gën a ko dañ koy romb bu jekk dem loolu mooy mëninu Seydina Limaamu loolu mooy jëloore Seydina Limaamu Mahdi loolu mooy xar baaxi Seydina Limaamu moo tax naka naka imaam Saxiir waxee ca ba muy waxaan rek njër na nan loolu la ñuy wax si lii mooy rasul ku man na ko def mooy rasul ku mën na ko def ku mën a jubal benn nit rek ngal la coow li batu ko wax neexul surtout nawam nag ngay wax di saaga ak ñett yow mën ngaa jubal benn nit jubal ka rasul de moom moo jubal mbooloo moo xam ne fu ñu mën a nekk cib jub rek mooy rasul ku mën na ko gis nga benn nit la jube ci sa loxo yonent bi sallallahu la wa sallam nee na xayrun min ad-dunya ma te lool ba mu koy wax Seydina Ali naa Abi Talib boobu daf ko doon yàq muy dem ci xare boo demee defal nii defal nii defal nii defal nii ba muy teere nag nekka nag ngal la na nga xam ne yàlla gindee ci sa loxo benn nit kese moo gën ci yow addinaak la ci biiram maanaam li ngay wut ci àddina ak li ci biiram lépp nga góor góorlu ba gindi benn nit tekk ci yoonu siraatal mustaqim loola ak gën moo tax woykat ba wax ne mboolem li fóor yi yaxal du ñu fi def lu gën jubal téere yu bari am na téere yu bari fii ñu bàyyi lay bàyyi fii téere yu bari bu dul xut xutab yii te baarakallah wa jazallah bàyyi Seydi Thiaw ak al imam Mouhamadou Sakhir ak professeur Assane Sylla yi nga xam ne ñooñu ko defaral ba ñu kéekan yi ak ba nga xam ne suñu sang Seydina Isa Rawlaay moo ko sosoon suñu maam suñu cheikh a cheikh Maxtar muy busuraanu xibbi lii dañu bëriwul te njub gaa ngi yaxal bi yaxal yaxal bind bind bind téere yi toll téere waaye ku mën a jubal benn nit jubal ko te ñu bàyyi Seydina Limaamu mi jubal mi mën na yar ab communauté bi lëmm ba ñëpp xàmmee ni ñii ñu baax la ñii njub la wax bi mu wax ne kuunu sullaaxan nekk leen ñu baax est-ce que ñam ko digal duñ ñu baax laaj leen ñeneen laaj leen jàmbur yi <laughs> ñu baax ñu baax lool ñoo xam ne boo leen bëggee di nga reconnaître dañu baax lañ boo leen bëgg li nga reconnaître dañu baax te saa boo soxlaat mbaax dem te ñoom fekk ko leneen du la ko xaj ñàkk bokk ñoom kurus du la ko xaj ñàkk bokk ñoom xeet du la ko dara du moo tax bokk na ci li yéeme saxaaba yi Seydina Ali boo gisee ma leen indil exemple toujours si ñoom ñoom ni doon jëfee jàngale ci doon jàpp ci dénkaane ci islam téye ko def ko téye teg seen di ko pratique duñ ci bàyyi virgule loolu lu yéeme la waaye nag nekkul lu impossible pour def ñoom ndax ba léegi mu ngi fi ba léegi ni moom Limaamu defar ginnaaw lan ak ren mooy ñaata ak ci cent la cent quarante trois ginnaaw cent quarante trois ba léegi Seydina Limaamu ngi defar ay nit ba léegi mu ngi baaxal ay nit ah baax na jërëjëf kon nag kan mooy ku baax ku baax mooy ku gëm yàlla gëm nañu yàlla waaw wala déet def lu baax waaye ñu ngi waaw wala ku mooy mooy li ko war ci digganteem ak yàlla mu ciy taxaw saa nekk ku nu baax mooy ki nga xam ne xam na li ka war ci boppam mu cay taxaw di ko def te kenn du ko sën xam na li ko war ci njabootam mu koy def te kenn du ko sën xam na li ko war ci société am mu koy def te kenn du ko sol ku baax daal mooy koo xam ne xam na li ko war ci askanam al umma mu ciy xëy di ci toll wallaay aka koy am depuis Seydina Issa Rohou Laye ba ci Seydina Mandione Laye ba ci Seydina Babacar Laye ba ci Baye Seydou Sow Laye ba ci Seydina Mame Alassane Laye ba ci Chérif Abdoulaye ba ci Chérif Al Housseyni Laye ba ci Mame Ibrahima Seye ba ci ñu baax ñi li ñuy li ñu xam li ñu war ci suñu askan ñu koy taxawee te duñ ci xaar ku ñu ne wax leen ndax loolu am na waaw wala déet te nga dañ koy yenu te nga xam la ngeen sa xam la ngeen sa xamul ko kookoy ku baax baax rek ngir baax baax ngir yàlla xam lu baax di ko wax di ko def di ko jëflanteeg nit ñi ku bon nag mooy safaan kooku jarul la mu ñu si fekk suñu temps moo tax yàlla ne am na alul ladina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ard am na jaalul muttaqina kal fujjar abadan déedéet ndax yéen di ngeen yamale ku baax ku bon yàlla nee na moom itam déedéet <laughs> ndax di ngeen yemale yéen ku ragal yàlla ku ñeme yàlla yàlla nee na moom it déedéet du ñu mas a yem boo leen bëggee yemale da ngay da ngay doy parce que yàlla mi dul yemale moom moo leen yemalewul ba pare loolu moo tax ñu baax ñu tedd ñi fii boo leen teralee yàlla teral leen boo leen teralul yàlla teral leen te boo leen teralee tedd <laughs> wallaay boo leen teralee tedd du nu xaste du nu ŋàññe du nu xuloo égoïste bokkuñ ci dara luy yàq réew mi te lépp luy defar réew suñu loxoo nga te laajuñu ci pay kenn mu wax moom alayhi salaatu salaam sayyidina limaamu mu ne wanzuru ila uyubikum wala tunzuru ila uyubi gayrikum man arada an tazhara uyubuhu falyanbish uyuba gayri lu am solo ci société bii mu ne dee leen xool seeni sikk dee leen xool seeni ayib yéen bu leen xool ayib ne attention ku bëgg say sikk sikk ak say ay buñeeku sëggal si di wuññi sikk sikk ak ay bi jàmm ak ay dëkk lu ñu soxla ku ñu ko wax ci suñu réew mi ci jamono jii ñu tollu temb bi naf na Sénégal ci kenn derab kenn ñëwatul suturay kenn ñëwatul te nag ñàkk def wala ñàkk a wax taxu la saamu ca est sax ñàkk def wala ñàkk a wax moo la say gën a dugal sax léegi léegi dafa mel ni moom ñàkk a wax wala ñàkk a def moom moo lay gën a dugal sax si loolu da ngay gis koo xam ne xamoo ko xamula mosoo kaa gis musu laa gis si xuleen si aadama ak ñu ne da da doon wax si diw diw moo ma dar gémmañam ne waaw yéena nag suñu amul wuñ ay ayib te nag doon yam si wuñ mu mu bari mais sos ya ak ñemeñ yàlla gaa ca doy waar sos ya ak ñemeñ yàlla ba moo sa ñeme wala li dig ñemeñ yàlla ci jamono bii jaaxoon leen xalaat indi naa moo tax loolu Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu salaam wax ne ne leen attention ku si bëgg say sikk sikk say ayib muréeb sëggal rek si di mu xaw yi suturee jàmbur loolu ñun ñëpp xam nañ ko bari na koo xam ne moo feeñal ay ayibam ci sëgg gëm sëggoon di feeñal ayibu jàmbur bari ngeen lu ngeen dégg ñu naan kii du noppi moom na noppi moo war a mujj wax te jëkk na yow la daal moo war a mujj wax te jëkk nopp maanaam na ko defee nag loolu bokk na ci ci tas réew mi te nag xutba naa ci àjjuma yële ci ginnaaw ma soog a fanaan ni sëy naa ñëw na ci dem gàtt ay gis nga gàtt nga gi muy gàtt ngaw ay suñu réew mii nan nan ko bàyyi aw ay baaxul gis nga ña nga xam ne ñu ngi dund ay woo fitna jooju doy leen sëkk tànk noo sax jaamu yàlla jaamu yàlla bu dara nañ bàyyi gàtt bu ay bi nekkul nekkul ñaan jàmm wala ku woote jàmm rek da nga far fii jàmm ji ñëpp ko soxla jàmm ji ñëpp ko soxla jàmm bi du lu ñuy politique nañ def présidentiel affaire la yoo xam ne bis bu yàqu woon kenn du ci mucc te defaraat ko dafa jafe ah yàlla nu yàlla doolu sutura jële nañu ci abi hurayra radiyallahu anhu mu wax ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينزل وينسى الجزع في عينه يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجزع في عينه pour rekk ñu delluwaat ci soññ gi ñu Seydina Limaamu soññe si ñu xool suñu ayib bi bopp tal suñu ayib bi bopp tal suñu sikk sallallahu alayhi wa sallam neen kenn ci yéen mu ngi gis bu baax lu tuuti pepp wu tuuti wi nekk ci bëtub mbokkam te fàtte na ngandu yet wi nekk ci bëtam ne taw maanaam ci watin ci suñu langage bi gën a terre kenn ku nekk yaa ngi gëstu ak di jéem a génne lu nëbbu loolu loo xam ne amaana ba sax amul te yaa ngeeg lu ne weeg nga yaa ngeeg lu ne weeg nga al al gis fi ay xam nga gis mooy ak ëkk mu baalaxa la waaye pour jàngal nit ñi ne yow sa bos maanaam lu tuuti loolu nga gis ci bëtub keneen bi mu ne la yow sa bos a gën a fës sa bos a ngi ne fàng lu tax gisoo ko te nag nit ki bu yittewoo di xool ay bi boppam loolu dina ko tax ba du tal ay bi jàmbur te nag yow la ñu sas yow yow la yàlla sa bopp avant keneen bala yow la yàlla na keneen mel duñ la ko laaj yow ni nga mel lañ lay yow li nga def lañ lay laaj li nga wax lañ lay laaj wala taksibu kullu nafsin illa wus'aha wala taziru waaziratun wizra uxra ku ne li nga def sa bopp rek koy def te nee nañ Seydina Muhammad bi alayhi salaatu salaam wax boobu la dëkkoo woon surtout bu ñu bëggee di wax waxu jàmbur danaan lu waay def boppam te afay dëgg doy na ci ton wala taksibu kullu nafsin illa lu waay def boppam mu tëje ko nag ci ne wa wa aydan azurukum fi jawaarixikum kulliha wa fi afaalikum fa ahsinuha wala tuxbisuha mu ne maa ngi leen di nem mu dajalewaat nag lépp xam nga am na ay cër yu mu jukki mu cër yi ëpp solo yi surtout nag làmmeñ ak bët ba nga xam ne moom la ñu ci woon daal mu dajalewaat ko yëpp nag ne maa ngi leen di nem seen cër yëpp am na ci cër yoo xam ne kenn ku tudde yow xam nga maam ngi leen di nemmeeku ci seen cër yépp ak seen jëf yépp ngal la rafetal leen te leen ko ñaaw kon nag yow mi nga xam ne yàlla defal na la jàmm yaram defal la yàlla defal na la teraanga may la kattanu wéeru cër yaram ngay jëfandikoo say cër ngal la jooxeel àq ji ci topp yàlla jooxeel àq ji topp yàlla mooy tundikul di jëfandikoo cër yooyu ci luy meerloo yàlla te ngay fàttaliku waxi borom bi subhanahu wa taala bi muy wax ci suratul infitar yaa ayyuhal insaan maa garraka bi rabbikal karim allazi xalaqaka fa sawwaaka fa adalak fii ay suratin maa shaa'ak moo ñëw nit lu la nax lu la yóbbu ci sa borom bu baax bii sa bu yéwén bi ci yow bind la bind bu jub nga taxaw taxawaay bu jub boo xam ne yow rek la bindal nga mel melokaan woo moo tax ñi xam mbir yi rabi àll yu soxor yooyu sax nee nañ nit tànk mu ngi taxaw ci post nii rabi àll yooyu songe lu mel ni gaynde ak seggeeg yooyu duñ ko nii ndax bind bi moo am xayba waaye yàlla mi la bind bind bu xëy am xayba boobu bind ko keneen ku la nax ci moom ba nga fàtte kat bay def lu neexul yàlla mu tëjee ko nag moom sang bi alayhi ne wa in tazunnu anni lam aalam wa lam absur wa lam aqrab inna rabbi alimun basirun karim wa sayajzi kulla nafsin bima kasabat mu ne bu dee li ma leen wax maa ngi leen di nemmeeku maa ngi leen di nemmeeku maa ngi leen di nemmeeku jàpp ngeen ne man xamuma gisuma jegewuma leen waa na ngeen xam bu baax nag ne sama borom bi seen borom xam na lépp li ngeen nëbb ak li ngeen feeñ gis na lépp li ngeen def bu teg li ngeen def bëgg te itam jege na leen bu baax a baax a teeg leen ci boor yi te kenn ba kenn bu ci ne dina la fay la nga doon faa ci loolu mu ñuy woo ci lu am solo muy al muraqabatullah bàyyi xel yàlla xanaa xamal ne bàyyi xel yàlla googu muy liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la Seydina Ali moom def bàyyi leen nag ñoom ñu dem dafa tàggat ci ñoom muraqabatullah bàyyi leen ñu dem nag fu ñu mën a de fu ñu mën a nekk ñooy surveiller seen bopp ñooy fàttali seen bopp ñooy yedd seen bopp ñooy seen soññ seen bopp lu ko waral dañ dañ bàyyi xel ne yàllaa ngi nii tiim leen yàlla ngi nii jege leen lool lool. te nag képp koo xam ne bàyyi nga xel yàlla ci lu nëbboog lu feeñ bàyyi xel ak ku bëgg yàlla comme moom ni mu ko tàggate ci ñoom bàyyi xel ak ku ragal yàlla bàyyi xel ak ku yaakaar yool ak payet yàlla bàyyi xel ak kuy ragal mbugalam yàlla di sàmm faratay yàlla di góorgóorlu ci naafile yi di moytandiku yàlla xaraama di moytandiku yi nu sib yi loolu mooy al ihsaan mooy ne yow yaa ngi jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog yàlla bi xam nga tey yéen ñépp si doon def dara suñu kanam nii dañ koy def na mu gën a rafet ndax cër ju nga ñu ko ah, bëgg ngi ngay bëgg ñu gis la ci anam bi gën a rafet yàlla gën a yelloo loolu moo gën a yelloo te loolu mooy al ihsaan an taabuda allaha la annaka taraa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraa kon nag mu tëjee ko nag mu tëjee kii boobu nag euh, faqra boobu ñu doon kii boobu ba léegi moom Seydina Limaamu Laay wax mu tedd bi alayhi man laqiya xayran gadan falyahmadillah bi fadlihi wa karamihi ku dem fële fekk fa lu baax sant yàlla ci ngëneelam mu ne man laqiya charan fala yalumanna illa na ku fa fekk nag lu bon yaa ko fa jiital bul yedd kenn ku dul sa bopp yàlla nu yàlla doon leen xiir ci jàmm ko ak yàlla doon jàmm ci suñu réew mii doon li jàmm jullit yi fu nu mën a nekk yàlla na yàlla wesaare jàmm ci àddina bi yëpp ah nu ngi ndokkeel ñëpp nag di leen jéggalu ci jotaay bi ak <laughs> discours bu guddi bi di ñaan yàlla barkeel ko yàlla nanguloonu ko nu dégg ko nu jëfee ko barkeel ak Seydi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant yàlla nañ ko dajewaat déwén ci jàmm ci sutura ak ak fekkin ak jaamu yàlla bu yàlla nangu jéggalu bàkkaar ak faju aajo zaahiranu baatinan baarakallahu li fa baarakallahu li lakum wa axiru daawaana an alhamdulilah rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تمام درجة الله خير سيدنا درجة سيدي درجة jërëjëf yàlla na ko teewee at yu bëri di ñaanal sunu xalif bu ñu guddal fii rek la muy yem ndax càngaay teeg loolu sax góorgóorlu ñu def ay effort rek. gën nañ leen a xam di leen ko jéggalu ci kanamu njaboot ay buur damaa wax sunu bopp ay buur ay sang lañu sang nag day koo xam ne laka ka mu jàpp ne surgaam la war kaa defal moom ci boppam muy wëlbatu mu defal bàyyi laay nee na alayhi salaatu wassalaam sëriñ bu ne dinaa la mën a ëllëg dara te kenn talul kenn te talu la fii mu tarantee nee na sëriñ boobu dalay na wattabiu man laa yasalukum ajran hum muhtadun mu ngi ne sonalu nu kenn laaj ñuy ubbee bayloo ñu kenn ay kon nag lu metti ci lii xew rek xam leen ne am lu ci yàlla jublu ñii dina ci jéggal seen bàkkaar ñii dina ci wéral seen i cër delloo leen ko foofa li noo nekk du sunu coobare yéen li ngeen nekkee du seen coobare waaye nag ci diggante jaam ak moroom ma ak boobu nun nu ngi taxaw jiital sunu ma xalifa bi kumpag yàlla bi imam ba ci ma ci baatin ba ñun ñii leen fi dogal di seeni rakk ñu ngi leen di jéggalu jéggalu boo xam ne ngeen xam ne na bu ngeen liñ ci woon nun li nuy dund di ngeen fàtte seen bopp léeg-léeg ñu toog si jotaay yi nelaw koy fay man man ko naa kàmbari nelaw naa mbor ay guddi ngay tegle lii du politique du ay meeting du da déedéet baatin la faw bu baatin bi wàccee ñaka yenn dañu nekk ci jàmm loolu foog ngeen xam ñu ñu complante moom mi boo déggee ni may waxe da ngay gis ne dafa fans laay xam naa ko du laay dina ne imaam bii moom da moom daal moom day ràcc rek di jëme si booram rek mais loolu ndax ko waxaale ñun ñëpp rek xalifa bi fu mu toog billaahi mu ngi leen di tiisoo joxe instruction nden raj raj loo bii boobu am foofu nañu ñëpp a toog sécurité samay rakk naka homme de tenue yi def nañu ko yor moom ci boppam te bu nee ay rakkam yéen ci njaboot gi ngeen bokk rafetal nga ku déglu imaam imaam Libaas démb déglu sëy naa ni nga yar bi sunu taaw bi yaru toog si sunu wet rek jàpp ak njàmburam ku nekk ak sa jëf noo mel rek yàlla la ko mel mu ngi leen di jéggalu mu ngi di jéggalu mu ngi leen di jéggalu lu leen fi metti ci toogaay ndax nee na ñu fajar am na ñoom ne fajar fekk na jàmbalaay fekk ak wér dëgg ci yaram ah jamono bi ah deux heures du matin ku war a jóg dem tuuri ndox tàllal say tànk lan na lépp di jàmm ci yéen seen yaram loolu faw ñu wax leen te du nay buur de wallaahi du nay buur sunu sëriñ kenn kenn dund ko ci ñun ñi kenn ak njaboot gu oyof rek la Seydina Limaamu bàyyi ñu am ñeewante ci doomu aadama yi denc ñu dara lu am joxe ko toog walla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 tey bu ngeen ko xam kenn suñu nelaw bu appal bu jub sëy kenn du nelaw maanaam daanaka luñ fi wax mu jub sax yàlla ndax toujours ñu lay jax jaxal rek léeg-léeg ay wax ñëpp léeg-léeg am yu ñu yoo xam ne boo àndoon sa sa programme ñi dañuy wax rek baa la ñu kenn dara ak li wax ne da dem ba dañuy sos loo xam ne ñoom ci seen bopp war nañu wéet yëpp seen bopp ci nit ko baax kii ñu jël di ko sosal. addina yàqoon waaye ñooy baax ñooy baax dara mënu leen a xamal ñu ngi leen di jéggalu ñu ngi leen di jéggalu ñu ngi di leen ñaanal lépp lu leen naqari amul wala wax su amee wastaxfiruhum la yàlla waxoon sunu maam day leen jéggal nun day jàpp amul ñu kenn ax lu waay wax rek baax lu waay wax rek baax li am solo mooy yàlla mi xam na xam rek na xam waaye lu mu nekk carnet yi du fi imaam damay jox benn exemple ñun ñuy fanaan ci ñaan yi ñun ñëpp a jéggi loolu nit ñoo xam ne bu ñu xasee ba toog dootuñ ñi muy jóg position sa doog a def ku ci nekk mën ngaa génn dem nga fi la ngay def ñëwaat toogaat bu ñu nekkee ci tànt bi ba asamaan set ñi moo ngi sax sans opposition ñi moo ngi sax taxaw def ni ngir bëgg rek sagal leen ak bëggalu leen ne ak xër si yéen kon lu leen jéggale na ngeen nuy jéggale noonu yéen sonalu ñu leen si dara kenn sonal leen koo ci bëgg a gis sëriñ bi toog naa fa weer gisuma ko wala fa laa suba ba ngoon gisuma ko amul ci kër bàyyi lay ba ci xalifa sëy naa li ma sunu xalifa bii fi toog la ko yàlla yéen ba tëj ko wallaay bu ngeen taxamoon xam ne ab la mu la mu leen yanul ba tax mu nekk ci lii mu nekk da ngeen war di ko ñaanal ñun day xam na ñu dañ ay rakam xam na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 asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu